jowandoo suñu gaal gi jow in hand work together Sénégal suñu gero na ñëpp jóg bu kenn toog ñi dox mbati ñi sox amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw Sénégal mooy suñu gaal nañu jow suñu gaal gi nañu jow wañu jow

begetaatake nañu jox sunu gaal gi nañu jox sunu gaal gi gaal gaa ngi ci géej gi te géej gi dafa samra oui kooku. man de liggéey laa doon. liggéey. waaw yow foo dëkk. jàppoo laa dëkk. jàppoo. waaw yow lay bindoon. man vingt mille léegi laay bindoo. vingt mille. dafa ndaw. non dama bëgg mbindaan bi nga xam ni. day am classe. day mën des mën a liggéey. naa la ko defal soixante mille. soixante mille. waaw merci. jege si bi ma xool. mbindaan bi nga xam ne la. yow looy def nii na njëkk tey na mu wute nga may tegaat sa yow yëbaatee woo te osé wax dëgg maa gis li ma mel loxo yi. moo tax ngay dóor oui moom na njëkk tey waaye yëbaatee xam nga dóoru ma dama laa raay dama ma tiggate sa loxo di nga dagg da. Eh, génn sama kër yow xam nga yëbaatee eh, bëgg a dee. Eh, génn sama kër yëbaatee ba bëgg a dee. sorcé moi yow yëbaatee woo te osé. yow sa gàttaay gi nga may naan ay liggéey laa doon. non moom bàyyi woon naa ko. liggéey laa bàyyi naa ko man affaire bi. waaw maa ngi def. Eh, Dia. waaw. yow liggéey ngay wut. waaw. yéen saa. Ah, ah. bàyyi woon naa ko sax mais yow ak kon ni ngay doxee nii. ak ni ngay kiyee te gis ma gis len ni nga xam ma xamni ko ku civilisé nga motax parce que man sama kër gi dama am ay gan ah waa ñaning dañ fi ñoo ñoom fat bintoog ñoo xam nga man dama bëggoon rek nga mel ni ku dox ni rek ma xol nga mel ni ku may foral dara fii waaw waay Wah, dapat dong. Hah? Dapat dong. koy merci beaucoup koy merci nag après naa ñëw jàll bi Père yow barki démb sama jabar bi nga ñëw bu jigéen nga taxaw du ko làmbat ñu wax ma ko dëgg Père yow yow ah yow nit ñi di wut liggéey daan doon fii di daan seen doole nga nekk mu leen làmbat loolu war na ah ah loolu war na yow kii war naa am rek ngay dem jàkk jàkk yow lii la damaa tiit ku tiit nii ngay def voilà soxna si. waaw ça va bien. yi. man am sama benn xarit fuma andalon fi ci bop koñ ah. wa ma ma fatone sama telephone dina bëggon ko wala, wa waaw loolu kay garaawul. du orange la rek. waaw <laughs> dama composé ko composé ko. ñaata la. numéro bi 904. ah 904. Eh, eh. yow ku ñak fayda nga. Ah. yow defé wu ni fi fi nekkee. taxaw ci mbéd bi daa matu ay wéru jigen numéro lu sama ko defee tey dina démé neneen. numéro bi fayda bay bëgga dé numéro bi la quoi numéro bi ma ko doon laaj rek numéro <laughs>